acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat euh, lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko fara def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax xam naa nag ki ma dalaat tey na mën ngeen ko ndax euh, doonatu ko ñuy présenté ci milieu médiatique kooku mooy sëriñ Alioune Niass nga xam ne doonatut koo xamante ni dañ koy présenté te ràññee ko na ci diggante ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk mu ngi ciy def résultat atia waaye nag euh, tey laata may ñëw suma biir programme yaata ci bu baax a baax kilifa gi damay bàyyi nga nuyoo mbokk askan wi tey nag ñu fekk la fii sa dëkk di Kaolack fas yéene taataan xam-xam ñu yaatal ci bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk askan bi aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi bu baax di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooleem ku ñuy seetaan ci site bi di nuyu réew mi ak ñi képp ku nekk bitim réew di wax ne képp ku ñu seetaan lépp loo dégg yal na nekk njëriñ ci yow lépp loo dégg tamit ba oo ñu téléphone ñëw jëflanteeg ñun lépp li nga jëflanteeg ñun yal na la ko yàlla defal ci barke alxuraani karim jërëjëf euh, sëriñ alin ñas ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen set yooyu tànd ak daal fas yéene waxtaan ci xam-xam ci diggante ñaan bi nga xam ne yaa ngi ci def résultat waaye paj bi nga xam ne yaa ngi ci def résultat yi maj ayib ba ñëpp di koy waxtaane xew-xewu jamono am na lu mu gis ci avenir président Ousmane Sonko ci ni nga xam ne mu ngi ci biir kaso bi nga xam ne moo di sébi xotaan waaye am na loo xam ne gis na ko ci euh, nekkinam boobu nga xam ne nekk na ko ci biir kaso bi leneen loo xam ne mën na ko cee soqeekoo dina ci yaatal élection yi ndax euh, mën naa am 2024 wala mën naa foom ndax président Ousmane Sonko di ci bokkut itam lan moo ci mën a soqeekoo loolu it dinañ ci waxtaan euh, tekkaaralu kilifa diine yi ci jàpp biñ ko jàpp mu di président Ousmane sonk am na lu mu ci bëgg a yaatal tey ku déglu di nga dégg révélation yi am solo kilifa gi tey nag ñu fekk la Kaolack ah fekk la sa dëkk euh, ku gis nag ak yooyu ngay def ak guy gi nga xam ne ci laa bëgg ñu waxtaanee léegi léegi ak lépp loo xam ne xeetoo na ci guy gi ak secret yi dinañ ci yaatal waaye laata ñu dugg foofu bëggoon naa xam euh, fan mooy euh, cosaanu Serigne Aline ñas waaw alhamdulilah rabil aalamiin Cheikh fi nga ma fekk nii mooy sama cosaan alhamdulilah muy Kaolack Medina Baye Niass alhamdulilah ah fekk nga ñu ci dëkk boo xam ne secret secret yi fii la ñu ndax defe naa ne weddi gis bokku ji fi may faje ak fi may sampe ak fi may joxe kaaraange defe naa foofu nga ma fekk alhamdulilah beneen côté bi mooy si suñu beneen côté ñun ay tukkulóor lañ ci côté yaay cosaanoo saalum fii ndukkumaan alhamdulillah góor gu mag goo xam ne foo ko tuddee rek ñëpp xam nañ ko muy alaaj saaliwu ka tun juma jur suñ woy jur bu jigéen alhamdulillah foofa ñu peeg fa mbooleem xam-xam boo xam ne góor yàlla yi ngi koy xam ci wàllu baatin lu ci ëpp foofu lañ ko jëlee alhamdulillah ndax kooku moom koo xamut tamit dégg nga ko alhamdulillahi rabbil alamin foofu dal lañ jëlee mbooleem baatin bu ñuy gës def nit ñi di ko yéem mm-hmm. alhamdulillah foofu lañ ko jëlee ndax yaakaar naa olof Njaay day wax ne weddi gis bokku ci te lu du dëgg du yàgg defe naa site bi ku koy suivre yàgg nga ma gis te fépp foo ñu fekk defe naa boo waxee rek da nga wax ne ñi ngi ko fekk Dakar wax fa nga may fekk te mosta toxu waaye tey nag dama la oo sama dëkk cosaan oo la sama biir kër pour nga fekk ma fi alhamdulillah waaw jërëjëf sëriñ Aliou ñas aja di kontaanaat baax di jël nuyoo bi di koy teg ci sa loxo nga wasaareel ñi ko ñi nga xam ne ñu ngi ci tund Kaolack bi yëpp waaye rawatina waa Medina baay bi nga xam ne fekk nañ la foofu aja du lépp lañ mën a filmer du lépp lañ mën a génne waaye fi muy samp nit ak bagaasam yi lépp gis nañ ko waaye nag liñ ci mën a génne yaatal ci bu baax a baax mu di guy googu noonu ak loolu ngeen di gis bagage yooyu muy defa def ak débat dem yi guy gi lañ bëgg a xam lan nga ci def la waaw guy gi guyu ndonu la guy gi si suñu maam ba tey mi ngi fi alhamdulillah mhm. ñu si faj mboolee mi aajo nag aajo zahir ak aajo baatin oh. waaye baatin yee ëpp mhm. guy gi dama ci samp nit te bu ma ko sampee kenn du ko sempi oh. ndax guy gi bari na ay paa yu mag fi bari na ay maire yu mag fi bari na ay maam yu mag fi ñu xam ci secret yu ci kenn xamul nag parce que ndigal lañuy waxe waxee maanaam tooguñ rek di wax suñ naf su bakkan ndigal lañuy waxe te ndigal lañ ñu jox timit ci guy gi alhamdulillah ma ci samp ci sampin boo xam ne du ay waxi kese walla ay kii ndax la ma fa def gis nga te loolu moo gën a tuuti ci la ma fa def parce que yow mii wala keneen ak keneen ku fa mënoon a taxaw te defuma ci li ma ciy def dootoo ko ñaareel ndax guy gi du neen samay bagage man ci guy googu la ne loolu moo tax ma ne la fekk ma fii ci Saalum ci kawlax ñu ànd ba foofu ma wan la ne la man fii laay sampee fii laay defaree nit waaye fii laay sempee timit man ci guy gi waaw su ma neexee ma samp ci nit kenn du ko yëngal li ma bëgg ci moom lépp yàlla defal ma ko ci kàttanam moo xam société nga ame moo xam place nga amee moo xam bitik bu mag nga ame moo xam loo mën a ame ba ci taabul ki yore taabul sax bu ma la ci sampee tey incha allahu taala kanam rek doo doo dellu ginnaaw mukk incha allahu ba tey noonu la ñuy defee ci nit ku jug pour yàqal nit waaw nit ku jug pour bëgga yàqal nit ki mu torox wallu mu walaakaana ma dem jëflanteeg yow ci guy gi ak sëriñ boo mën a am ak ku mën a doon nga bàyyi ko mu neex la mu naqadi la wala ma toroxal la rek walla ma rëq sa ndiggi sëriñ ci guy gi guy gi daal li ma ciy def ci gàttal mënumaa toog di la wax mënumaa toog di la ko wax fi laay fi fi të seen jabar yi nga xam ne dañuy topp jigéen ñi di mbaraan di def lu bon ma yeew leen fu bañ ne ngoddu daaj leen sama pont yi nga xam ne pont yi 41 jours laa koy teg di ci liggéey li ma ci liggéey ma daaj leen ci ñu ne nem seen kanam euh, jabar yi dootuñ yongu jigéen ñi nga xam ne tamit dañuy të seen jëkkër yi di taxawaal wala ñu def yenn yi tamit kazalika naka noonu ma réglé leen foofu bañ mel ni montre incha allah guy gi daal cheikh si gàttal li ma ciy def manumaa toog di la ko wax ndax guy ak ndoonu la du caaxaan du caaxaan waaw. naa la ca sët euh, la ca maam sët koy doon tëggu ndono boobu nga xam ne Serigne Aline Niass def na ko la dëxañoo sacré ci biir guy gi bëri na kaar macha allah mu ngi ciy def euh, mbir yu am solo rawatina ci mbiram samp ak yeneen ak yeneen. atia waaye jëmm ji moom ma doy ci seet bu wër wala listixaar ni mu ko waxee wala niirlu ñu ñëw ci seet bi yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def. waaw seet dafa bëri ay façon comme ni ma la koy faral di waxee heure boo ma seetsee man damay seet si ndox damay taxaw ci géej sax xool wax la li ma la bëgg wax ci géej damay xool ci asamaan wax la li ma la bëgg a wax damay seet ci ay xobi garab damay seet ci ramlu muy suuf si nga xam ne danga koy jël tomb ci def ci say bagaas di di gis te loolu lum gis di dañ damay seet ci istixaar istixaar dama ci seet seet daal li ma la mën a xamal mooy lépp lu ma la seetal danaay gis ba gis la lu ma ñemewut a wax man sëñ Aliou danaay gis ba gis lu ma ñemewut a wax loo xam ne bu ma ko waxee àdduna tukki waaw seen moom aw ma ci kem gis naa nag ay sëriñ suy taxaw ne kenn dàqu leena a seet wala kenn ñoom ñoo dàq seet wallahi dañuy wax rek sama guy gee guy ndonu gee wallahi azim bu ma lépp lu ma bëgg a gis sax bu caaxaan jeexee sax bu ma taxawee gars yi génn ñëw wan ma lépp ma jàkkarloog moom jaxaratan ña fa ci guy gi foofu waaw jërëjëf aw ma ci kem mhm. wallahi azim ma ci kem dañuy ñëw yaatal ñëw ci mbiram protection mu di kaaraange nga xam ne yaa ngi ciy def euh, ñaan yu solo rawatina jamono ji nga xam ne ci lañ toll ndax dafa tëradi ñàkk aar bopp wala wut kaaraange bu am solo daal lu wóorut fépp foo yaakaar nag demal wuti ko waa yew mii euh, ñàkk a jëflante yow wóorut de lii ay ren la mhm. macha allah lii maa ko jëlee ci guyang danu gi li ma ci jël lu tuuti la rek lii pour wane rek lii lekket la waaye du leketu dem rek jënd dafa am fu mu jógee waaw am lu mu lii mën naa cee defal nit kaaraange boo xam ne wallahi azim bu ma ko defee ku repp moo koy laal man sama kaaraange dama lay wax lu leer nañ ñetti façon laa am ku la def du yegsi ku la def mu dellu ci kawam ku la def dee léegi léegi def léegi dee léegi bu la neex ngay tànn ndax ku la bëgg a rey nga rey ko aayut ci baatin aayut kii li ci def moo ci defee ba pare képp koo xam ne repp na maanaam ku repp sax du la liggéey képp ku la liggéey wallaay bu dee oto la duggoon balaa yegg def accident bu dee dafa doxoon bu yegsee tànkam niiwi wala loxoom walla biiram ñun yoruñ gàllaaji gone ñun gàllaaji ñu yore nii ay ñaar téeméeri at man na ko du gàllaaji caaxaan kaaraange moom dama cee am lu kenn amut wax jee fi ne rek sëñ bi ñun amuñ jot ñun soo ñu gisee tey bala ñoo gisaar yàlla xam ñun amuñ jot amuñ jot waaw kon looloo tax ma ne la la ca euh, maam sëta koy doon te euh, maam booy bi jégbal na la lii di lenk yi ba tax na yaa ngi ciy jëflanteeg nit ñi lu am solo ñi nga xam ne bëgg nañu am ñaan bu wër aja ci ubbeeku bu ànd ak wërsëg bi nga xam ne yaa ngi koy def waaw ubbeeku yi dañuy delluwaat ci kaaraange du defal kenn ubbeeku te joxuma lu lay aar ndax diw diw diw bu yàggee diw la nga am problème xaw ma ndax yaa ngi dégg olof yi may wax diw diw diw bu yàggee diw la nga am problème sëriñ dëgg balaa jox nit bàyyi rek ubbeekook lu mu mën a doon daf koy aar ba pare soo ñëwee ma aar la ba pare ubbi la jox la loo xamante ni sa wërsëg kenn dootu ko kal gis nga lii dafay law law nag olof la. xob yi yi lan la wala lawtan yi duñ tudd turam. waaye képp ku ko bëgg te ñëwoo Saalum de doo ko am leer na ma. maa ngi koy wax léegi benn waay ne ko lii bëri na Saalum waaye nag Saalum rek la am amul feneen. waaw lii hmm. dafay law hmm. mën na law ba cent mètres. Hmm. kii buñ la ci defalee liñ la ci defal ba pare ci wàllu ubbeeku sa wërsëg amatut kem day law di dem te kenn du ko fi jëlee kii noor nawet amut ku ko mën a jëlee fii heure boo ko utee am ko amut garab gi noor lay am du am nawet waaye nag dafa am nuñ koy utee dafa am heure buñ koy utee am na heure boo xam boo demee soxla ren ba doo ko fa fekk am na heure boo xam ne day tontur mais boo demee soxla tontur ba doo ko fekk dafa am heure kii suñu secret la kii secret pël la du secret olof kii secret pël la man ñaari côté yëpp laa mane ñaari yëpp laa manee foo ñëwee rek paaka ñaari alhamdulillah boo ñëwee si ren a xob a nangam bismillah boo ñëwee ci wàllu lasraar kayit ya bismillah ñaar yëpp foo ñëwee rek alhamdulillah kii daal ci lay defaree nit mhm. te kenn dootu ko fay kii ci wàllu wërsëg waaw kon am na solo jërëjëf Serigne Aliou ñas jërëjëf ci xamxam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu lépp rek ñu wér ko ci xamxam di yaatal bu baax a baax acca ci yéen ñi nga acca ngeen ñuy topp ci 221 people acca ci ñi nga xam ne soxla nañu Serigne Aliou ñas du naqare jot ndax numéro bi mu ngi noon affiche si suufu baar d'écran bi leer nañ soo ko contacté dina jëflanteeg yow ba soxol sedd guy acca cheikh bi damaa bëgg ñu desandi ba léegi yaatal ñëw ci mbiram papier mu di kayit nga xam ne ñàkk jaar ci yow ci ñi nga xam ne bëgg nañoo tukki waaye bëgg nañoo déposer am visa passeport ñen nekk ci réew ma tàgg euh, ku ci jëflanteeg yow daal xoolam dina seet ci mbiram du léegi liggéey boo liggéey fukki at yu teg mosoo ci am problème ah, yaakaar naa problème weesu na ci léegi ba site internet ñëw fekk la ci ah sëñ bi kon dama ne mbiram kayit moom jarutoon sax nga ma koy laaj gars yi ku seet ku seetaan rek gis nga xam nga këyit sëñ bi dama koy regle ci vite fait laa la wax vite fait amul taxawaalu amul taxawaalu bu ma la seetalee wax la sarax yi ngay génnee nga def ko ma jox la la ma lay jox bi isnillahi taala ndem jëfandik nga kooku jëfandikoo nga ko ci réew ma nga ne dama ne kay sañ signé kayit yi bu ko signé wut dee daf koy signé bi isnillahi taala loolu amul wax kayit dama ne la man dama ne woon dootuma ci wax sax ndax loolu adduna dañ ma cee xam gis nga permis yi doon tëggaa yi sax Europe dama koy régler loolu méttiwut sëñ bi loolu méttiwut mbiri këyit du dara man kuñ yàq wala mu wër ba tas si sëriñ si man ñooñ laa soxla waaye ay kayit yi du dara yi du ma faral di wax sax waaw wax dama cee wax ba sonn waxatuma ci waaw ok ci ñi nga xam ne ñu ngi koy sàkku saa su nekk nekk ci réew mi wala ña nga xam ne ñu nga ca réew ma tàggatémbe nee naa leen duma ma waxantu fexe leen ngeen jëflanteeg moom suñu borom dénk na ko ci siru bu yéeme boo xam ne soo ko bëggee rek vite fait lay doon. acca damay ñëw ci beneen mu di ñi nga xam ne dañuy naan sàngara ak ñi nga xam ne dañuy njaaloo di tux bëgg koo bàyyi mu doon lu jafe ci ñoom waaye dama naan ñooñu xanaa dañoo gisat Serigne Aliou Niass. bëri na ñu ma ci dindi. ci Kaolack gii ak li ko wër Dakar ak li ko wër bitim réew ak ñi ko wër sama tukki bi paase rek ma génnoon yu deme noonu laa doon réglé ci benn kilifa boo xam ne doomam mooy def loolu te xale bu ndaw la amut sax quinze ans xale bu tuuti commencé di foye sàngara ak cigarette ma dem réglé ku ñëwaat li li may joxe ci mbiri sàngara ak yu xeet yu bon yooyu su ma la ko joxee dootoo nangu sax mu xeeñ la xam nga lu la xeeñut moom doo ko naan lu la xeeñut doo ko tux mm-hmm. loo xam ne bu lay xeeñ nga am problème da nga koy daw sori ko mm-hmm. kooku moom alhamdulilahi rabbil alamin bu yàggut sama tukki mi looloo ma taxoon a jóg kese du leneen oh. loolu moom mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin man nañ ko régler ci kattanu yàlla incha allah te loolu amul ay ñaari fan ak ñetti fan loolu dañ lay jox léegi nga dem jëfandikoo suba nga ne sëñ man kat cigarette ma xëy sama bopp bi day metti sangara moom bëggatuma koo gis alhamdulilah loolu moom am nañ ci may am nañ ci may bu baax a baax moom kay liñ lay jox nangoo ko utiliser rek boo koy utiliser bàyyi lépp lu bon ak mbiri njaalaw yi ngay wax ak yu demee noonu bu fekkee ku yore jabaram la óoluwut ko am na loo xam ne buñ la ko joxee nga fexe ba def ko nañ la ko waxee képp ku nekk ti sa jabar ku ko tiim dootu nekk góor te bu la neexee sax ma defal la ci bi nga xam ne ni bu teel siwut ci man dootut gaaw a de dootut gaaw a dañ bu fekkee timit même góor gi mooy njaaloo bu la neexee yow jigéen gi ma defal loo xam ne fépp fu dem du nekk góor moom waaw yooyu secret yooyu yëpp mi ngi fii bi dama ne la guyu ndonu gi dama ne la lépp falaa ko dëxëñ yenn saa yi nag ma am lu may xaw a négocier tuuti waaye bu xaal bi ñëwee rek wallahi ma def loo xam ne sax damay pare sax xaw koo réccu yàlla xam na ko mm-hmm. ñu yemale ko foofu jàll ci beneen ponk ndax xam naa mën nay dem ba di waxi xaal aja nee naa leen ci ñi nga xam ne dañu def ñaawteef yooyu mu fi lim sànq ñu koy waxtaane euh, soo ko jëfee ni nga xam ne lim la jox sant ko sant la ko soo ko jëfee ni mu ko bëggee rek da nga ci gis lii di tawfiix aja cay noob nopp xanaa gars yi dañ laa gisut alhamdulilahi rabbil alamin gis nañ ma sax <laughs> gis nañ ma sax ndax nopp damay wax ne dafa bari façon bu fekkee am nga xam-xam lu ëpp téeméeri noob am na sax waaye man bi ma ci def nga xam ne maanaam boobu moom vingt quatre heures laa lay may suñu juboo ci wax laa wax man mayu la ay ñetti fan ak fukki fan bu fekkee nag lu diire nga bëgg tim amul problème yëpp fi am mais am na loo xam ne sa wax naa la ko sànq sama guy gi loolu nag dama ne woon bala ma cee wax ci télé télé fekk si ma yow nag yama ma ne ma dama lay seet si la ñëwal fii nga koy déggee sëñ bi dama ne la mbiru noob sama pont yi may liggéey quarante un jours nga xam ne heure bu ne maay moom lu man mille pont dama ko yore junney pont lu ko ëpp dama ko yore dégg nga balaa mat weer léppay jeex ci mbiram noob du noob kese sax am na leneen lu ko tax a jóg waaye lu ëpp junney pont dama koy ame te balaa mat weer lépp jeex ma ne la guy gi kay yaa ko film boo ko film woon gis pont yi du jeex ci guy gi képp ma ci daaj doo rëcc parce que gars yi te ñoom buñ la téye ndigal la feeg waxu ma ne bàyyil duñ duñ bàyyi te buñ jëflante waroo wurujo incha allah yaay dem ba doyal rek du ma bàyyi boo waree nag mu neex tey suba mu neex ginnaaw suba mat rëq sa ndigg dindi ko te fi ma toog laay toog du ma fa demaat sax di di di di dawal oto walla may dox di ñaq du ma ko def waaw dama koy dindi rek fi ma toog mu jeex waaw acca man nag eh, dama sob dama sob te lu ma gis dinaa ko laaj ñu waxtaanee ko ngir ñi nga xam ne dañuy topp dañuy mën a jëriñu eh, lu mel ni socc bi bëgg naa xam ci lan lay dox secret am waaw eh, alhamdulilahi alamin tegoon naa ne doo ko laaj sax yow seex loo gis laaj waaw alhamdulilah kii boo koy soccoo sa noon du la ree mukk wallahi bañ bu sax si gémmiñ du la rey waaye nag dafa am lum ànd ak dama ci def samay bagage du soccu kese de waaw te it daqaar la de te comme guy gi ni mel ni noonu la daqaar gi mel daqaar gi danañ fa dem beneen beneen émission incha allah boo ma seetsee danañ fa dem incha allah kii képp ku ko soccoo sa noon du la ree avancement jëm ci kanam rek incha allahu taala suñ la oon sax ci mbiri yoon laa la wax nga jël ko soccoo ko dem incha allah taala fa nga jugee woon da fa delsi suñ la oon ci coow nga soccoo ko dem yaay gañe wax coow li oh, nit bu la doon pexeel bëgg laa ñëw pour pour pexeel la sa kër bëgg la seet moo xam daf laa takk wala dafa bëgg def yëfi saay-saay nga soccooku incha allah bu ñëwee jàmm rek lay indi kii li ci ne ëpp na téeméeri njëriñ képp ku ko soxla rek dinaa la wax man lan lay jëriñ bala ma la ko jox incha allahu taala bu soobee yàlla. jërëjëf euh, Serigne Aliou Niass jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leer li am solo nee naa leen li duuf ci nag bi xajut ci cin li suñ ko doon topp rek mën nañu waxtaan ba suba ndax suñu borom lim ko dénk ci xam-xam bëri na kaar macha allah atia waaye foo may jeexalee bokk na ci xew-xew jamono mu di actualité nga ne lan nga gis ci avenir président Ousmane Sonko ci politique am rawatina ci prison bi nga xam ne mu ngi ci ñii ngi naan dee def grève de la fin ñii naan déedéet ci politique la lalu ñenn ñi naan yeneen mën na cee soqeeku. alhamdulilah. laajoon nga ma ci weer yële ci ginnaaw wala at sax defe naa laajoon nga ma ci ma am lu ma la waxoon waxoon naa la ne la Ousmane Sonko sëriñ si ne fii yépp di wax ñu ci bari dañuy wax rekk waxoon naa la ko Ousmane Sonko waxoon naa la ne la wéeruwaayam dafa des waxoon naa la ko alhamdulilah fam nekk na le ñii ñi ngi ne mi ngi ci grève de la ñii ne nekku ci ñii ne waaw ñii ne mi ngi naan ndox waaye lekkut ñii ne lekkut naanut waaye lu ci mën a xew incha allahu dana fa génn jugee fa ci jàmm te dara du ko dal ma ne dana génn foofu ci jàmm ah. incha allahu te du dee. bu neexee yàlla ak ñi naan ni mu nekke ci kaso gi ba dee sax mënu ko cee. sëriñ bi. Mhm. dama ne la tëdd nalee ci lalu hôpital. dana fa jugee ba pare. Mhm. kaso gi dana ci génn ci jàmm. te du dee incha allahu taala. waaye weeruwaay ci boppam. Mhm. la Ousmane Sonko amut. surtout ci wàllu politique bi mu nekk nii. fan yële ci ginnaaw. am na yu fi mm-hmm. ci wàllu baatin ku am baatin xam nga ne Ousmane Sonko jekku nañ ko te jekku biñ ko jekku caaxaan dindiwu ko kon dama ne sëriñ ci tax nekk ci télé yeeg internet yi Sonko Sonko Sonko mm-hmm. su dee xam ngeen li ngeen xam defal leen ko ko su dee xamu leen noppi leen mm-hmm. te ñëw fii ma samp ko sama guy gi loolu mooy wax ji ma génnee ko kaso samp ko mu nekk président loolu mooy wax ji. te lépp mën naa nekk fi ne nii. mën na nekk sëñ bi gu yëng la du caaxaan loolu mooy wax ji dama ne ku man na ko génnee fa mu ne ci xat-xat yi mu ne ku mënu noppil bu ñëpp mënu nan ma ko jox. gis nga génnam doonate na loo xam ne dina yàgg ci président bi moom président Ousmane Sonko. buñ waxee man ma génnee ko. bu ñu waxee man ma génnee ko sëñ bi. te yàgg noonu. yàggi lan. du man li ànd ak man la. du man man waxuma dafa am lu may wax loo. il faut gars yi xam loolu. man waxuma. ok. atia ci élection yi laay ñëw est-ce que élection gis nga fu mu amee 25 euh, février 2024 du fekkee ne am na sans président Ousmane Sonko bokk ci ndax loolu élection yooyu dina doon élection yoo xam ne dina mën a jur jàmm ci biir réew mi. élection yi nag xaw na lëndëm tuuti sëñ Serigne Cheikh xaw na lëndëm tuuti pour mu am waaw lëndëm na tuuti hmm. waaw. waaye daal ah li may xeeñ baaxut de. noonu sëñ bi. may xeeñ baaxut de. dama ne. Hmm. na gaa yi def ndànk. xaram yeeg. rendi nag yu ñuul yeeg. su mbéjunoog dem rendi nag yi yëpp jaru ko ñun ay niti baatin lañ ñun liisi si la ñuy régler lépp luñ bëgg regle régler na na gaa def ndànk na yi def ndànk hmm? te hmm. dama bëgg nit ñi jug taxawaat ci beneen taxawaay ci usmaan Sonko balaa sànku. balaa la loolu de junj la jugaat taxawaay beneen taxawaay laxasuwaay beneen laxasu. Hmm. balaa Ousmane Sonko sànku. Ah. bu ñu yéexee. bu ñu du du kii waaye daal li ma mën a garanti man. Hmm. man danaa am lu ma defaale. Ah. incha allahu toog di xaar. man dina am lu ma defaale toog di xaar incha allahu. gisoo Macky Sall mu toog ci donkaas gi fii continuer fii ak ba deux mille vingt neuf. ah loolu mënaguma cee wax léegi loolu mënaguma cee wax parce que fi may wax ak yow nii bët bu set ma recevoir appelu ministre bët bu set ma am lu hôtel buñ ma réserver wala leneen ak leneen pour ma ñëw Dakar wala résidence. lépp ngir liggéey waaye man dafa am fu ma teg sama bët bi man dafa am fu ma teg sama bët te dafa am lu ma xam te gars yi xamuñ ko loolu nag dinaa ko wax beneen émission incha allah. Euh, doo ci waxee mën nga cee wax donte dina diis lan ngay wax ci kilifa diine yi nga xam nit ñi nee nañ ah ñu ngi seetaan jàppoo leen ñu ngi seetaan de ak ni réew mi di doxee rawatina nag kii nga xam ne tëj nañ ko su jekkoo kenn doo wax suñ ko jekkoo nit ñi ne pat tu jekkoo ñu woo ko ba mu baale. alhamdulilah rabbil alamin kilifa yi li leen war mooy wax. seetaanu ñu sax wax nañ ba sonn. kana kay ki ñuy wax ak ñi ñuy wax ak ñoo dëgër bopp wala ñoo déggut waaye dama ne kilifa yi léegi wax bi dañ cee sonn. ñu ngi wax kon ngi wax. xam nga léegi lan lañ bëgg. Ah. jëf ci baatin. ñoom waaw. kon wute nga ak ñi naan kilifa yi ñeen ñi dañoo log dañ leen a logal ba mënuñoo wax quoi. kilifa yi leen logal fii kilifa goo fi gis. Hmm. moo xam président bu mën a doon bala ñëw fekk na bàyyi kilifa googa di tedd walla maamam. dégg nga hmm. ay logal yooyu amu ci. dañoo wax ki ñuy wax ak wala ñi ñuy wax xale nag boo koy wax moom ba sonn mu bañ dangay ngay fàq yar bàcc bàccal ko wax jooju waay mu dégg li ngay wax ñun foofu lañ jëm ñun nekkatuñ fii di wax ñun dañuy bàcc bàccal roof la ci suñ guy gi léegi nga dégg li kilifa yi di wax kilifa yu mag yi nañ toog bàyyi ñu ndaw ñuy jëflanteeg ñoom mu jeex. mën ci dara. la laajteel waa ji doon dof-dof lu taaye ah. waaw bi dama kilifa yu mag yi nañ noppi bàyyee kilifa yu ndaw yi seen doom yi ñu régler situation mu jeex kon cheikh bi euh, dañuy bàyyi nga tàggatoo donte li ñu war a waxtaane lépp suñ ko toppee sax neex na ba mënuñ koo bàyyi mu jeex dañuy bàyyi nga tàggatoo ndax am na solo lépp ci xam-xam rek lañ ko wéeroon alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla beneen yoon di gërëm mbooleem senegale bu ñuy suivre ci site bi di ñaan site bi yàlla na dem ba nekk télé bu mag a mag a mag ñi ciy liggéey ñépp yàlla defal leen jàmm defal leen tiraanga yal na yàlla sotti xewalam ci Sénégal yi ñuy dégg ci yeneen réew yépp yàlla buñ ko gis fii yal nañu yàlla teel boppam sàmmal ñu boppam aral ñu boppam yàlla buñ yàqu yàlla buñ yàqule képp ku ñu nar a yàq yàlla na ko boppam doy képp koo xam ne ni dafa jóg pour toroxal Sénégal yal na ko yàlla xalaat képp ku jóg pour toroxal doomi senegal yi yal na la yàlla xalaat yal na nga tal sa bopp ci barke alquraani karim ñi ngi nuyu diaspora bi yëpp di nuyu mbooleem fu sénégalais ne te xam ñu ñuy jëflanteeg yow ñu ngi lay nuyu di la wax ne inchaa allahu taala ñi ngi xaar incha allahu taala euh, képp ku ñu contacter rek lépp loo soxla bu neexee yàlla incha allahu danañ ci taxaw kem ni ko bëggee incha allahu taala te dara génnut ci alquran dara génnut ci ren ak sungu fa fas dara génnut ci ismullahil azam incha allahu taala ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.